ngeen namm togg bu saf sàpp rafet lool ci melokaan bu sell. seeni magi maaman yii dañu leen liggéeyee ak li ngeen taamu di safalee seeni togg ngir jox ko melokaan bu taaru bu amul fenn. togg ak magi du aajoo nga siy def xorom. togg ak magi mooy neexal sa at. yaay dee ngay jooy ba muy dund buur la. Eh, eh, eh, yow tamit mënuñoo nekk ci contrat ngay way way dee. Ah, alaaji du ma way. waaye déedéet dama lay wax waayil waayil leneen dama dama accordé baat. waayil waayil leneen. te gis nga jommal jinne sénégalais loo ko ni mën nga ko ba tuddee ko ko mu yëg ci boppam. foo seetaan wu rek la mën. du ñëw mukk ah. sa yaay dee ngay. ah kenn du way sa kër la de yaa doon na ñaar. 好好 xoolal seen ensemble bis foo nekkoon ah man saa yu ngeen ma wooyee ah, ah. ma tëj machine ba waay waay yow atelier ba laay tëj daawal waay dangoñ nam naa la waa kii nu jëmmal jinne mi ngi ba am nga jàmm ram gi jam gi gi jam gi gi jam gi jam oh. toogal la ilaha illallah toogal nii waaye nag saa yu ma saa yu ma jàkkaarloog yéen rek ah. sama xel day daal di dugg ci ci saa bàkk ba toogal nii dangaa tardé bëgg noo amer de di defal ndànk man ab atelier laa yor. tardé baaxul. machine bi ñu la dara. machine bi yoo xam ne ay cent vingt cinq franc. Hmm. ay ay sept cent ay dëbb daax dëbb daax li booy yi di ñëw mënatoo koo ñaw. nga dëgg de xewi ak lu xaraama yem. ki at bi yëpp mille cinq cent la boo ko dajee moo tax machine sincère bi ma yor sax bi ngeen ma woowee rek dama ni ko këpp. waax hmm. wut si leen jéego ña nga def. maa ngi sant yàlla faa yéene ngeen jàmm. waaye yéen de bu ngeen ma wooyee rek jàmm ngeen ma wooyee. eh kon yow poosé goo sa bëñ bi. non nu ma koy poosé. yow keroog mbaxal mi loo wax politicien boobu. da nga poosé de. booy bëñ day caaxaan bëñ. laay laay bëñ booy. booy booy booy booy bëñ moo ni lay de. Mm-hmm. waaye yow. waaye wóor na yàlla li ma mm. wan nii wan ko gerte caaf. Mm. wan ko konkorom. Mm. Oh. Eh, jommal. Mm-hmm. xam nga yow da ngaa bokk si ñun. te ñun buñ naree lekk dara bàyyi la yàlla nañ sax bu génn dangaa bokk ci ñun marché nag dafay ñëw bu mel ni kumba kaw kaw mii kumba waaw dafa organiser sabar gu rëy yaakaar ñu si ndax xam nga Rose Milla lu tax Cameroun fonk ko uh-huh. dañoo xam gëddam da di màgg technique te ñun dañu di ay màgg géew mm-hmm. Mm-hmm. mu engagé ñu mm-hmm. nekk nit ku baax nag ñoo ne ko bu ñu fay dërëm. waaw laa waaw waaw test daal la. ñu daal dinañ ñëw wane suñu bopp. phase test la fay ñun dërëm. ndax li ci garam mooy gono yooyu nga xamante naan ay fecc xale. waaye yu booy. Ah, naan na dañuy yóbbu retraite. ay booy waaw dañ faa nekk. xam nga bëgg ñu dugg. problème bi mooy booy géwél yi ñoo respecté tuut mag yi géwél yi. Mm-hmm. joxatuñ leen seen cër. Ah. booy yu rarement ngay lañ lay fokk ci programme teral la. wala bañ laa gàcce fu la fekk dañ lay bëgg a wàccee eh, te da nga di mag léegi nag phase test la ñu ne buñ ko réussir dañ la yóbbu France waaw uh-huh. mais euh, joxewul dara joxewul waay yow il faut ñu réussir bii mu ñu soog ñoo jox dara waa ji néeg France bi nga ko jëndee ak dara. yow beneen programme ngay xool. waaw bu jëm alaj kii suñu xarit lañ ko wax dëgg. moom a gën a doon géew ga rek mën nañu faa may ca géew ga. mën nañ fecc ñu may ñu. kon wax lépp géew ga laa ko yaakaar. i am na ñoo xam ne bu ñu kontaan di may di ñu may. lu bari sax waaw mais ah, xam naa ne boo jaaree fee toj. Ah. kii jaar fee toj. mooy déedéet France bi ñu fi tudd man laa lay laa lay contrecarré nii. Ah, vous n'êtes pas de vrai griot vous du ngeen ay vrai griot hmm? daf may neex rek ma recevoir leen ma neexul léegi da ngeen génn sama kër dëgg la dafay trop de bruit quartier bi yëpp ay bruit la ndax yéen yi kenn mënu fee nelaw kenn eh. jël sa maraaki si frox yi nga def ko kii moom man de. waaw yow dindi sa maraaki yow tamit waaye buñ la waxee rek nga lii ay kawas la lii. ay verre filio la. yëkkati sa tànk ma xool bokkul. ay verre filio la bokkul yi tortu munti yi la. américain nga ah. <laughs> griot américain laa nekk. <laughs> da ngay fenn mënoo nekk griot américain. kii jeex. man ah sama turandoo boobu comme Jay-Z. ñi nga doon sama xarit rek moo. comme Jay-Z. Jay-Z kooku griot américain pire la. griot américain la war na dëgg. ñoom ñoom sunu dog. Mhm. dogi dog griot américain la. dëgg la. waaw ñoom ñoom MC Amar. MC dëgg la. griot américain la. ak waa kii la. ak kii kii kii gagné barki démb. boxeur bi non non c'est bon doy na. doy na doy na bul yokk bul yokk bul yokk bul doy xam nga yéen. dama leen a mere yéen ñaar téyel ma nii. téye ko. téyel boo ko guuxee parce que yéen géwal bu njëkk ba géwal da doon defar xam nga man dama leen a gën a solution nii rek mais gënu leen maa xam histoire géwal géwal bu njëkk ba làmmiñam day defar di ñaw lu yàq mu defar. ndax keroog ba Lat Joor di songu ñaan yi yónni géwal ba ne ko demal ma ci Kimintang Kamara ne ko Lat Joor ne dafa bëgg a jàll. mi ngi mel ni démb ci man. espèce de menteur. sa maam fekkewul loolu nga ne mi ngi mel ni démb yow. histoire bi ma nettali woon laa wax. histoire bi ma wax Jési doxal ci la géwal bi ñëw ne ko Diallo Mbaba Diallo Diop ñaani bañ na ci la créé woy boobu ne ko. ñaani bañ na Diallo Saala Fatma Khouré Diop. doy na kon xam nga ne maa ngi gën a xam histoire géwël géwël dafa civilisé mais yéen da ngeen di tëgg suba tëgg guddi tëgg trois heures du matin trois heures du matin ñit ñi dañuy nelaw parce que ñu war a yeewu suba liggéey. nouvelle génération bi waaw xam dëgg rek ah. nañ dem ci géew gu lu ñu fa am muy suñu wërsëg moom nag joxewul dërëm ah waaw waaw yéen day mosu leen maa nax ah mosu leen maa wax it lu amul te xam nga. waaw diggante fii nii fecc ba pare fen xaju fi. am xaj na ci. loolay la diggante fii ñu def programme. yaa ko ne fay ñu waaw. déedéet géew ga dinañ ñu fa may man xam naa ki organise te yu booy laa bëgg ñu wàcce leen. baax na ma ngay boo nee dër. Ah. kii na dër ku ñu tee. kon nag say boo nu répété. répété xaju fi répété xaju fi. répété la dafa compliqué torop. compliqué ko tax a des ci ci machine boobu. yow xam nga plan de jeu fii. waaw dafa jar am na. waaw 4 3 3. fii lañ ñu ko ñawalal eh, waa mi Sénégal yi di di di défilé mu ne ñooñu dañuy défilé di fàngaanju du ma leen ñawal ba perte marché ba kii. <laughs> ah bañu ma loolu nag de bañu ma loolu. waaye yow euh, tu es partant man lu ngeen ma wax dama koy def yaa xam nga yàgg naa ak seen biir waaw yàgg na noo ànd yàgg na ñoo toj programme bi waaw eh, eh, biñ fi amee léegi xanaa motagul un an quinze jours de xanaa waaw biñ fi mujjee am programme bi léegi waaw léegi nu mu doon demee lay demee défenseur lay joué waaw kii latéral yow yaay neuf peccum kaw mi bi yaa ko yor ñii ñooy waa armée de ba sa bàkk ba njërëgéen njërëgéen njërëgéen taaw yooyu yàgg na de sawaay nag yooyu buñ ko présenté mbaa dunu dunu dunu baax na ñun moom la dañoo yàgg de ñun moom la maaseel ñëwal fa ñu yemoon rek la ñuy yema ñëwal wu ñu jël ci réew kenn feccatu ko waay yow mu ne taas ba taas ñu ne wuran aywa daan ni cërëlëw cërëlëw cërëlëw cërëlëw gi jëm raw daa bi daa daa raw daa bi daa ak gi jëm ah fii rek gi dan gi lañ koy bàyyi bu ñu gis nga yow gis nga yow gis nga yow kii kii ñu um kii lu mu bàkk du ko àggale dafa daanee loo bàkk bi kër gi la ah bu ñu demee ci programme ba day yegg. ah système la de. mais kër gi la. système la système la de. ah géwal du def loolu de géwal du dagg ay mbiram géwal day àggale ay mbiram tàllal ko dama lay wax rek. lu ko continuer sax man maa ngi fàtte de. léegi nañ ñëw nañ ñëw cërë waaw. cërë cërë. déedéet. Ah. njërëgeñ njërëgeñ lay njërëgeñ njërëgeñ njërëgeñ njëree taaw bay sa dugub bay sa gerte saa yu la neexee jëri ko du ma wax ak guusee kemb laay waxal am sëp sëp yaa da ngay cëpp cëpp ñebee gore ah lay lay ah, du ñebe gore de. ndax la loolu la ñebe gore. waaw ñebe gore kay. ñebe gore ñebe gore ñebe gore de la. su yow ñu la ñebe de. ñu ne bay sa dugub bay sa gerte saa yu la neexee jëli ko. waaw ñu ne sëb sëb ñu ne ñebe gore. waaw ñebe gore waaw lay lay la la. waaw waaw ñu ñebe gore ba la lay lay la waaw. am na surprise. yu bari xam nga man du ma fecc. Ah. Ah. damaa nar a yor way wi. yéen ngeen ne karawaas door dinañ ko wëcc ak yow. doo fa nekk nag di way ba ne fecc de. Ah. da ngay fecc de. déedéet. dañuy yaakaar ne maa samp point neuf. waaw ndekete neuf yaay yéen la système la. bàyyi ah, ko ko. <laughs> jëlal ma jël benn. Eh. mu way na ñu pecc pecc mi baax na waaw. baax na na nga bàyyi nag ba programme bi di jeex nga soog a fël di ñëw. déedéet du ay xalaatuma loolu. bul nelaw na ay. <laughs> baax na mën nga dem. ah sa paas jeex na hmm? baax na. fay ñu dërëm nag leer na. nga ne ma sa xaas jeex na. ma sa paas jeex na laa wax. ah paas bi kon nan ma wàcc. waaw waaw waaw demal baax na baax ngeen jàpp baat bi nag bu doon ko fàtte de. déedéet déedéet buñ ko baat di di ko di ñu ko fàttali. tëralan ji waaw ah, nga ne lan. moo tax ma naan. Ah. xam nga dafa am sax loo xam ne. waaw buñ ko bàyyiwul xel. waaw muy àndandoo gi mouvement d'ensemble. gone yi dañ koo bëgg. waaw fokk ñu def mouvement d'ensemble. bu nee. cërë réew cërë réew cërë réew ñëpp dana xii jëm réew la li gindam wax gi réew la gindam wax naan gi tan ah. waaw defaat bii daane جدا دني تاج تاج جدا دني dani gis gégin waaw kay ah loolu am juutu la de ah loolu am juutu la de alay man nañ ma dàq bii moom duma ko fa fekk ci dañu baax na kat kun ku kun baax na loolu tojal la kat ala yéen nga ne xam nga la mooy toj géew ma baal leen ma baal leen waaw mooy toj géew du ma leen baal bul wax wala kër foofu buñ ko booy xamee ni dañ koy noppil a mën a fen yéen ñaar ah. ba fi kus kondorong boobu jinne boobu di tëgg ay tama man maa fay les griots là les vieux là mooy ñaari paa yooyu maa leen fay ñoom ñoo ko gis yéen gis leen ko woon non gisoon ko gis nañ ko ah, man maa ko ma fi woon euh, jaan benn gel bu neex neen ma digoon ne da ngeen ma koy may nangam léegi lan ngeen def sama kër sax waaw la ngeen def sama kër kii naaw ay jàmm. yaay suñu kilifa. non non jàmm tënku ñu am. waaw xaaral waaw. te dañoo programme bu rëy suba ci guddi. fan ci quartier bi. waaw ci quartier bi non non non demain je dors tôt y a pas de programme damay teel nelaw. yow la fi gouverneur te yow la fi préfet teg. Eh, ah waaye tamit ci yow la ñu war a ñëw nga dimbali ñu ci autorisation. su non nous sommes en période d'hivernage il faut ngeen arrêté rëngi rëngi pour mu mën a taw. c'est la nouvelle génération li la kii waxee xale yi jigéen ñi dañuy nelaw wala ñu bàyyi ba seen heure jot rek yor seen tuuti xaalis rek fekk ñuy nelaw rek ñu ne moo tuuti moo di mbalax mbaay jóg leen tàng biir man leen ban heure ñu ne ma trois heures la koy looyee heure bi ñu dëgg man mii maa la digoon jaan bi. jaan ko digoon. c'est des menteurs. bi dafa jékki-jékki dem Mali. Mali mi ngi Dubaï euh, déedéet Mali la demoon kii bee ko fa téye variant bi. ah variant bi waaw ah, moo tax moo tax nag kii tànn biir bi mu lay wax. Mhm. ci kàttanu yàlla ak baaxam si laa la bëggee jox ku mel ni per. njool ca kaw càmm dem ak bokkor laa koy dox. càmm ba ba xadi ca xadi càmm. dem ak bokkor moom. waaw dégg naa ci délégation say lay bokk. ci délégation say ñaan la bokk. nu ma nga kaw wiccaxu lii nga ma waxoon ngeen ma waxoon même discours bii nga ma waxoon te da ngeen a fen kooku daaw waaw doo loon wiccaxu ka ma la doon wax du wiccaxu mais Thiam Demba ak Bokar day wiccaxu wiccaxu waa ngi ca wax day war na air yi ah, kooku laa te bi ma am na ay maam États-Unis yee eh, kenn wax États-Unis américain man loolu xam na ba ma xoolee dafa xees xees pecc parce que man dama koy takk ndax man damaa ñuul kon il faut ma am jabar ju xees pour mën a sauver doom ji. magu Fatima Thiam la. waaw ah, Thiam Demba ak Bokar. Thiam Demba ak Bokar la léegi nag waaw léegi nag. borom nee na waa si. déedéet Thiam Demba ak Bokar la. ceeb yi ba Thiam Demba la. waaw mel na mel na Thiam yi daa bëri. dina ñëw ci sabar léegi dina ñëw si sabar. léegi man kooku. Hmm. moo tax sax mu gën a bëgg ñaan autorisation. Hmm. ndax bëgguñu tëgg ba ci yàgg. police ni fa dara. Hmm. daal di ñuy jàpp mën naa ko def ah, parce que man bu ma lelewee ab sabar rem taapi yee ma ma woo police mu tas ko. waaw léegi nag looloo tax ñu bëgg a ñëw sur l'autorité administrative suñu paree ba yëkkati ko bu ñëw fanaan fii fii lay fanaan loolu kuy ko fii lay fanaan. boo fenee dama lay dóor bal. su ma fenee tey dóor ma bal maa wax lii man. non mënul fen xam nga bii moom leer na. moom dafa am sama benn cuks. muy bokk ci délégation say man xam nga foofu laa koy cësee ci affaire waaw madame Touré la tudd madame Touré moom amagul moom amagul jabar mm-hmm. moom a mag fopp nag maa ngi joxe autorisation bi cëm yaa ngi joxe ñu jar joxe autorisation te dinaa taxaw di déglu sabar bi cëm buñ defee mu euh, euh, ñu tasee sabar sabar buy tas day déglu waay sabar buy tas sabar buy tas euh, sabar buy tas doo ma ko laaj doo ma rek sabab bi sabab buy tas daal tas na. non non non non non am na tëgg bu ñu tëggee. jéem ah ah ah, ah bu yëg la buy tas. rënkin cën cënkin. déedéet déedéet moom mooy tàggu mbaar. gi jën gi jën jën jën jën rënkin cën cënkin. rënkin cën booboo jeex ma ko déggee na xale bi ñëw jox ma sama loxo léegi. pour muy leer waaw foo ko déggee. waaw. da nga xool kii. waaw kii kii yow ngay xool man. en man maa ngi xool sama cuk si Marème Touré. je donne l'autorisation. gënal booy. damay naan comprimé 19 heures laa koy naan. na xale bi ñëw kii si boo fi naanee def ni aari Camara defoon naan comprimé bëgg a dem anniversaire am tëdd nelaw ba fa salaatul xëy na mu ne la yeewoo. xoolal gannaaw gannaaw gul gul gul gul dëndal gul damay naan bu dëgër di boy. ah loolu moom assuré wu ma. il faut que ñëw ko bi moom assuré kii dafa bëri problème. mënu ma la waaw. wayu kii retraité retraité. billaahi retraité na sa retraité démb daaw yi ba demoon fi Guantanamo ba nu tëj ko fa ba mu ñëwaat. wax dafa dof. dafa nag kaay ma wax la. dafa am dafa daf ñoo napp daa napp waa koñ bi ku fi xewle mu mu am fit ñëw ñëw tas sa yëf te du ci dara. ñooñu ñu bëgg a topp service mais man lan la ma jaaxal. ci mbir kii dafa xooñ de. daa gën a mos. grand bi xooñ na de. daa gën a mos. moo tax ma li ma ko dig. waaw yow la de. li ma ko dig gis nga en ce moment bi ngay war a indi wu maa ngi ma dem Touré. kii dafa xooñ. naan maa koy naan. ma ne ko moom. naan mooy teel a daloo de. li ma lay wax mooy li ma wax mooy différentiellement amul amul werante c'est-à-dire foye bu tuut wala dëkk bi bu mag bul def dara ah saa yoo fa aye boo xëyee suba doo mën dara te dana am programme doonu yàqal déedéet dul topp sa bànneex ba nga yàqal dama lay wax rek du ma topp programme bi ba yàqal sama bopp lii di affaire mbooloo mais affaire personnelle la lii affaire aha ah. affaire de la ah waay yow alaaj bàyyi ma waaw baax kii kan la nii. eh kuy yendu. yow loo yendu. laa ilaaha illallaah cib kàtta fayu kàtta fayu kàtta fayu dikkal xoolal ci la kàtta ba dóor ko góos kàtta fayu. dégg nga xoolal sa kii sa sa kii sa sa kii sa yaay sa sa sa yee. dégg nga càmm ñaaf sa kii kii mooy. ponkal yaa ngi bu ma nuyu. ah ñee yàq ngéwal xoolal mu ne nii. gis nga li ma gis. yëf yi moo sof tari kaay yi. li eh, eh, eh. ma daanee ci éthique rek laa ko teg ak ba ci fee éthique ak déontologie. ba ci fee téewuma fii bu fekkoon dama tee fii ay cus laa tee. waaw dama damay waaye fii laa tee. waaw la. te yéen fu la jëm nii. Ah, magum dama yu génn nga naan fu ñuy gas. yéen ma yaakaar ne fu mu toll nii yéen a ngi ci ponk lu maam répétition. lu xew général lu ñuy répété. waaw ah, waaye fan la ñuy lu ñuy répété. tànn biir bi suba. ma tànn biir tànn te xam ngeen lu mu doon. Ah. seen ménagère ñëw na fa. dafa ñëw na fa ba ñu yëkkati téeméeri junni jox ko. ay ñu desal ko 500000. waay Pape Talla Ndiaye na da lay na xoolal la ngay wax na lay leer. man à mon âge. waaw naa wax ma fekke wut man. yéen la suñu yoon ci taalibe lu suñu yoon ci taalibe lu tax ngay wax waxu taalibe. ba ñun ba ah ñun ñu bàyyi fekk. na ngeen a aase. waaw bàyyi lañu fekk. ñu waa Ngéwul central bu ñuy fekk ba am ñu ne ñu mel ne yéen dañuy bàyyi fekk. xam nga lu ma naq. waaw dama laaj ma naq. dafa di jox ko lan lan daf na jooy de génne lu tax ngay ñëw fii dañu wax waxu feeñ waaw ñu ngi doxal bi nañu feeñ un million avance cinq cent mille man sax damaa waxul loolu ñëw ngooy gunu faa ñëw waaw naan kaay leen ndaw si na leen soxlawuma leen waaw man li ma soxla mooy les anciens couloirs. dañ lay yónniwaat ci ndaw soosu ñun waa waa waa Timbax ba dañ fecc ñun booy suñu doom ngeen duñu bokk ak yéen géew. yéen kenn bokk ak Amara Traoré âge. Amara man. kenn ngeen bokk ak moom. booy feccatulu ñun ñoo feccatulu. booy booy booy ñun feccatulu. mën nañ ñeena bàyyi. waaw bàyyi nañ bàyyi dañ def déclaration. booy du bàyyi nañ bàyyi ngir. la laa yaa ko yoon bàyyi nañ. Ah, am na ci loo xam ne nekkul bàyyi nañ ko cat woon bu bàyyi. dañ kaa cat woon ala Moustapha. bàyyi nañ dama rek. bàyyi nañ bàyyi ngeen lu bàyyi ngeen lu garaaw. waaw waaw waaw waaw yooyu bàyyi nga ko. waaw bàyyi nañ ko. bàyyi nañ ko booy suñu benn pànk bi ci biir bàmmeel booy bi wax waxu. laaj bu ñu waxu fecc sama xel mi di ci dem demal dama koo wax di banaa ko demal demal mooy bul wax. loo bañ dagay bul wax. boo fekkee xamul la alaaj mooy demal. alaaj ma suñu bay demal rek. ana Moustapha ana Moustapha. dégg nga li ma dégg. ana ni commune ana Moustapha. dégg dégg nga li ma dégg. kon laal na 500000. ana Moustapha xam nga man li ma doon laaj fii am naa droit laaj ko décharge. am na sa téléphone. yow du ñu baal si woon yor ma téléphone.

xalifa xalifu Kaja akan Binta jabaru Birima akan Bousso mi nga xam ne mooy Awa Baba Ndiaye waaye gis naa ci sa délégation ba tey gis naa ci sa délégation ba tey ndeysaan la grande dame mi nga xam ne kenn dootu ko présenté à travers le Sénégal mu jigéen ju baax jigéen bu bëri njëriñ muy Maram Diop Sylla mi nga xam ne moo jiite relève fa tey sax mu ngi ci biir jotaay